عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وامق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 Alisam El Hadj Ibrahima Niass ban message ngay lancé si bi nga xamee ne jàllale nga programme bi woote nit ñi wuy si la. sant yàlla beneen yoon bi ñu yàlla may ñu def ko ak bi ñu yàlla may ñu def ko si jàmm ñu génn si si jàmm. te ñu ngi yàlla may na ñu teewit ko suñuy kanamu sëriñ Cheikh Abdourahim Ibrahim Niass te May Cheikh Ahmed ñu ñëpp teewee ci taaral ko mu nekk loo xam ne dooleem la ci sagle ci ñun ndar sagle si bi ñu yàlla mayee loolu sant yàlla te di sant képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ñëwoon ci bi ñu ngay sant rawatina ki nga xam ni tey mën nañu mooy borom jotaay bi di Cheikh Ndaw ay xam ni ñëpp xam nañ tey mën nañu jotaay bi jotaayam la ndax li tax jotaayam la mooy lépp loo xam ne day baax rek bu sañoon jot ci day kon kooku dañ ko siy sant bu baax a baax di yàlla yal na may gudd fan bu ànd ak wér di sant mbooloom kilifa boo xam ne teew na fi te bàyyi ma jubi daal bu ngeen jëwaay ku xam ne que na fi Oustaz euh, moom it teewoon na fi te des femmes de si njiital Seyda Mouskoro ñoom it teewoon na fi si njiitalu Adja Fama Fall. ak euh, Seyda Sokhna bi et réseau bi nga xam ne tamit les yàlla la faral jiite muy les femmes de la fayda ñoom it teewal na seen délégation soxna Abi Thiam ñoom ñu ko aussi teewal bi mu nekk loo xam lu nekk trop daayira yëpp teew nañu daayira Ndiol Pendu Baye Gàcc teew nañu ak délégation Ndeye Fatou Koundoul teew na Ibrahima Koundoul teew na. Issa ko ñu teewal ak mbooloo mu topp xëy ginnaaw ñun ñëpp teew nañu si jotaay boobu e booleeg dëkkandoo yi booleeg am di jàmm yi mbokk taalibe yi xarit yi mbokk jullit yi ñëpp teew nañ si jataay bi ngir lan ngir yàlla ndax eh, gàmm moom buñ ko waxee rek dafa firi boppam ndax gàmm moom mooy gëm-gëm ndax nit ki mu tëddee gàmm rek ci la am gëm-gëm ndax gëm-gëm moo yóbbu ci gàmm te bu nu gàmmoo rek dafa am gëm-gëm boo xam ni moom la ñu visé moo tax ñu taxaw pour def gàmm loolu moo waral ñu def jotaay bi comme ni ñu ko waxee nekk onzième édition di édition boo xam ne ñu si doon rendre hommage et suñu doom suñu mbokk comme ni nga xamee yaayu Baye Astou ñu rendre ko hommage jataay bi dëgg-dëgg jotaay bi uyu na borom li tax uyu na borom mooy Astou comme ni nga xamee ñun ñëpp ci. xaal bu tàng lañ ko xamee woon ci tudd yàlla te jotaay bi tey loolu wàcc na si kon mbir mi daal naax saayu kon ñuy sant yéen ñi nga xam ne yéen ngi taxaw muy Sall Baye muy Baraham Malam ñi nga xam ne yéen ñëwoon ñëpp ñu leen sant di leen yàlla ci ni ngeen ñëwee si jotaay bi. macha allah lan mooy kàddu satisfaction bi nga am si yi nga gisee ndaw yi nga xam ne. ñoom ñu ngi doon ànd rek suñu soppee suñu jigéen ñu ñëpp suñu xarit maasu taxawaay bi ñu taxaw leen ci programme waaw loolu moom dañ siy sawar tontu lool ndax li ñu suñu bët may suñu xol loolu may te suñu gis-gis loolu jox dëkk bi yàlla ñëwee ak dogalam xale yi ñëpp dañ takkaayu ñu nii dëgg dëgg astu dem na waaye ñàkkul doom dinañ taxaw fi astu daan taxaw dinañ def li astu daan def dinañ teew li astu daan teew te lépp leen waxoon dara dañu si e astu daan na jënd yére mu sol pour gàmmu ñoom def nañ ko daan nañ jënd dàll mu sol ñoom def nañ ko daan na jënd saak mu téye ñoom def nañ ko ba pare ñëw mobiliser wu taxawu programme bi organisation bi lépp loo xam ne organisation la rek tey taxaw nañ ko muy góor muy jigéen wane daal astu dem na waaye ñun ñoo ngi fi di ma yëgal ne ma daal doo wéet te ñu ngi ànd ak yow saa su ne loolu moom gis nañ ko tam wane ko di leen si ñaanal yàlla yal na yàlla seen taxawaay yàlla def leen mag yokk seen kattan et ñi jàng yàlla may leen ñu am diplôme bu ñu amee diplôme yàlla may leen ñu am place yu leen jëriñ lépp lu am ne jëriñoo ko ñii liggéey yàlla yokkal leen seen place yàlla bàyyi leen seen place barkeel seen liggéey e yàlla may leen ñi amul soxna yàlla may leen soxna ñi am soxna yàlla jubal leen seen ak soxna may leen njaboot gu am barke ñi am njaboot yal na yàlla barkeel seen njaboot. ci barke bis bi. lan mooy kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj rek mooy sant ak ngërëm ndax bu ñu tàntalee Mawlana Cheikh Ibrahim comme ni ko waxee rek yonent bi lan tàntal euh, Cheikh Tidiane lan tàntal yàlla mi xam ni mooy borom siis ba comme ni mu ko waxee moo ñu jubloo ñu tànt ndax coobareem dañuy defee lu ne te coobareem si lépp di amee kon tant bi coobare yàlla la tant bi nag bi mu koy def sëriñ bi mi ngi naan xool tant bi xam ni ki koy def du góor du ji jigéen góor la ndax tant bu taaroo nii waaye bu fàtte ni Cheikh Ibrahim moo jëmi taar ginnaaw Cheikh Ibrahim moo jëmi taar kon lépp loo xam dafay taaral jataay rek suñ ko mënee wala buñ ko amee wala buñ ko xamee dinañ ko def ngir taartaayu jotaay boobu mu ne feeñ alayka salaatullahi thumma salaamu fa